kon ci loolu ci la ñu bëgg rek Cheikh Sylla Tall mu yëkkati ay kàddu yoo xam ne daf koy jëmale ci mbooloo mi gannaaw bi nag ni ko jëwriñ Baba Sakho waxee rek ñu jox sëriñ bi kàddu gi sàkku itam bu baax suñ borom yàggalal ñu ko fi lool ci kanamam ñu ne ñu yàgg moom lool ba nga xam ne naa yi nga xam ne am na ko ci yoon bi yëpp suñ borom dooleel ko ci bu baax a baax baax baax kon ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax di jox itam kàddu gi Cheikh Sylla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 ci kanam moom moom mi nga xam ne mooy borom kàttan di borom man-man di borom sañ-sañ di julli ci bi alayhi salaatu wa salaam mi nga xamee ne mooy meññatu bi nga xamee ne tànn na ko seetlu ko wàcce ko ci mbindee bi ngir mu gindi leen jël leen ci euh, nëngate jël leen ci lëndëm jël leen ci sànku yóbbu leen ci gindiku ak bu leer ak bu jub di sant suñu sëriñ suñu roy gaay Cheikhul Khadim radiyallahu anhu mi ñu suñu borom defal xéewal muy xéewal ci jaam ñi xéewale waat ñu nekk ci agronome di ñaanal di ko fi teewal di Cheikh Mouhamadou Mountakha suñu borom mu yàggal ko fi lool naa yi nga xamee ne am na ko ngir liggéeyal lislaam waaye ngir liggéeyal yoonu murid mu àggale ko ànd ko mbokk ci taalibe yi wala ko bu wér di ñaanal a Cheikh Mouhamadul Bachir moom Cheikh Mouhamadul Fadal suñu borom gën koo dëgëral gën koo tëpp ak wér dina ko yokk aw fan bu gudd lool moom naal yi naa am ngir liggéey ba Cheikhul Khadim ci ron mbaaru Cheikh Mouhamadul Fadal mooy gërëm di nuyu di siyaare suñu buntu ci kër Cheikhul Khadim muy Cheikh Ibrahima Khalil ni ko mbokk yi wax rek eh, suñu baaba suñu aadama suñu gund la bopp gund bu yaatu la bopp ñun ñëpp xam nañ ci na gudd nañ see jaar ba jàll dee su xat-xatloo dee su boo xam ne yàgg lool te xam naa sax eh, kàddu yi ku xamul te lottu te lëndëmu làmmiñ buy wax du leer rawatina mu koy waxe foofu ñu toogal di wax ñoo ko gën a xam li muy wax te moom mi koy wax gën ko yelloo woon jëme ko ci boppam di ko waxee ci ron bopp yéenut mu yëkkati ay kàddu ci lool waaye ñu ngi koy jéggalu ci xam ne li war a yëkkati gi rek mooy nekk taalibe ci biir ay taalibe ñu sàkk ci ñu lool mu ne su ko gàntal te sëriñ bi waxoon na ne Euh, bu kenn sàkku ci yow dara loolu man nga ko def loolu te bañ a defee dara ci lu ndigal buugal ñu ba tax ñu ñuy taxawee. kàddu yi nag lu wéesu kàddu yi soññ suñu bopp noonu ak kuñ sañ a soññ wala ak ku kàddu gi mën a egg ci ba nga soññ loolu rek mooy sabab bi lu jiit loolu ñu fàttalee que ne yàlla borom bi tabaaraka wa taala ñu bind lépp sapu lépp sàpp fépp ak ñëpp waaye lépp ak lépp ak fépp dem nañ ay ngëneel ak ay tànneef mu bokk ci tànnee tànn yooyu mu tànn weeru rajab daa bokk ci borom ci gën ci hadis Nabi Sallallahu salaa Wasallam nekk li donte waroon xam-xam yi ñu ci wax daa séddale weer yi ne Shaban moom moo ko moom Ramadan yàlla ya la waaye ya, rajab moom weeru yàlla ya la Ramadan jullit ñi la rajab weeru la rajab weeru yàlla la bi suñu borom tànnal boppam mbir yi li ci daje nag moom rajab bëri lool ci jullit bi rek li ci gën a fes mooy Arab wax na ko léegi yéegu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak rañaan gi mu defoon ci guddi ñaar ak juróom-ñaar di guddi Makkatal Mukarrama dem Baytil Maqdis bàyyi fa dem ca asamaan yi juróom-ñaar fa borom bi tabaraka wa taala yàlla defal ñu ci ay xéewal ba di gën a fisit muy xéewalu julli kon guddi gu màgg la bu julli ñëpp adduna fu nekk adduna bi rek julli ñi dañ ko war di taxawe di ko màggal ñu ni ñu amaat ci gën a jagle ndax yàlla day def ak jagle ci boppam dañuy defaat ak gi ci amaat muy Cheikh jagle la boo xamee ne suñu borom dañu ko defal ndax ci la suñu borom def bu feeñ di leer gok suñu borom wàcce na ko ci àdduna gi ci ron Cheikhul Khadim kon loolu ngëneel la lu rëy ñu bu baax kan mooy Cheikh Mahamad Al Fadal ndax xew-xew yu bëri na lool événement yi bëri na lool waxtaan yi bëri na lool waaye waxtaan daanaka bu ñu waxtaan ci nit la ci ëpp solo mooy ki ku baax la lu def ñu wax ko rek jàll solo sa baax na am na lool waaye nag dana gën solo mooy ñu mën caa jàngee sëriñ Fallu ak dundam lépp luñ mën a jàngee la benn pàcc boo ci jël rek mën nga caa jël defara ci sa dund yow ci wàllug diineem ci wàllug mbokkoom ci wàllug ak taalibeem ci wàllug jëflante gi muy jëflante ak ay mbokkam ak wàllu gi muy jëflante ay taalibeem ak jëflante gi muy jëflante ak mbokk yi dëkkaloom ci réew mi benn bu ci nekk rek am jàngal la mu mat sëkk moom mënees na na koo jël jàngal ci waaye ay li nga xamee ne defal na ko Cheikhul Khadim ci ay naale Serigne Touba yu bëggoon mu gar ci bakkanam ba def ci saa su nekk saa suñu xëyee kenn ku nekk yaa ngi ciy jaarañu te gis di teg bët di loolu mbégteem Cheikhul Khadim la nit ñi war a jàngite mooy war nañ koo roy ci dogu ga war nañ koo roy ca woyof ga war nañ koo roy ca yaatu ga war nañ koo roy ca nangu ga war nañ koo roy ca muñ ga war nañ koo roy ca xam-xam ga war nañ koo roy ci la waajur a bëggoon wala bokk la ab sëriñ a bëggoon muy Cheikhul Khadim ñu taxaw ci ci tomb ci lañu soññee muy sa sëriñ ni bëgg nga taxaw ci ku nekk xam na ne borom bi bu bindee adduna bi yëpp bind nit ak jinne ak yi nekk ci seen biir man na leen a bind rek bàyyi leen ñu nekk seen biir di jëfandikoo kenn ku nekk demal sa waaye yàlla day ko nos ay biram tax mu noseel ñu adduna bi ndax bu ko ñu yabalee du jabal ay yónent yoo xam ne ñooy dox ay mission déedéet ndax waaye ngir jàngal bi daal bind ay yoo xam ne ñoom la yónni ci ñi nga xam ne ñoom la tànn ci ñooñu mu tànn ñooy jëlee malaaka yi jëlee ay xibaar seen borom di ko andi ci tànn yooyu muy yónent yonent yi di ko jot ci mbindeef yi mbindeef yi yonent yi di ay làmp yooyu mbindeef yi dañ cee war a niitoo ci ñoom ñu ay njiit kon ñu dégg ci ne njiit mënta ñàkk ci lu mën di doon yonent bi wa sallam dafa wax ne ñett suñu àndee nañ jiital kenn mu loo gis euh, muy dox di avancé rek jàpp na daa am ko jiite am ñu dox kon jiit li baax baax baax jiit lu lay gindi jëmale sa borom moo ci gën a baax ndax nag ëtt naa li ci lépp ay taaru la rek yoo xamee ne ñunux la loolu dañ koy gis waaye day naxe luñ ci mën di wutit te wutuñ ko ci anam gañ ko war a wute wala wutuñ ko ngir jëm yàlla it ay naxaat dong lay dañ koy dégg war a wut lu ñuy eggale ci a jariñ loolu nag munoo jékki-jékki yow rek nga wutal ko sa bopp ku nekk xam na ne xale bu juddoo dañ koy nàmpal di ko jàngal ni muy nàmpe donte jamono jooju da nga naan kii nga xamul ni ñu nàmpe waaye bu ñu ko noonu teg ko noonu rek ndeyam bu ko koy jàngal loolu lépp ay koy jàngal lu nekk. doomu aadama noonu la mel digganteem boromam mënut a xëy rek egg ci boromam mënut a xëy xam ko xam boromam. moo tax yàlla ñu bindee ñëpp kenn xamu ci woon boromam mu yabal ñooy xam ne seen borom muy yonent yi ci loolu nag lay dox ba yonent nekkatu bi ay wali yu ñoo fi nekk ak ay ñu ak seen i góodam ñoo ñooñu a xamal suñu daal ba temps la ngir ñu a egg nekk ci ron ñooñu ñuy teete ba lu ko may ak cànkute dong la ñuy jural ku jékki-jékki toog sa rokk dégg ñu ne jàng alxuraan baax na wér du nangam baax na eh, jàng xasida sàngam baax na nga di ko def baax na lool waaye man koo xam ne dafa beru ci ënd ak sëriñ bu mag bu ko mën a yar kooku day xuus ci géeji alkande day xuus ci gii alkande tey dara du fa dikkal lu koy jariñ ndax saytaane ak bakkan ak bànnee xam ñoo fay womat wala yaas bi lay taala te ñooñu bu ñu womat ci ak alkande nga jëm kon ab sëriñ mun la ñàkk sëriñ nag mun la ñàkk des ko waram yaa na am taqulaa wattaqu ilayhi wasila nañ jël nañ yéen ñi nga xamee ne dangeen a euh, gëm borom bi na ngeen ko ragal tey wut lu leen di eggale ci moom yonte bi mu dikkee yàlla dana ko toppal ngirum sama Ibrahima wax ne na topp yoonu ki nga xam ne moo dëgg ma jëm si man kon loolu mënut a ñàkk kenn ku nekk nag war naa mën a wut ab sëriñ boo xam ne moo koy eggale sëriñ bi nag bu melee na war a mel yow taalibe bi am nga noo war a mel mooy sëriñ bi dañu ko tëggal Seexul Xadiim sifaatu saadiqil muriidi bi ixtisaar abaxatu nazamtuha xaw baxtiraar asirqu fi mahabbati sayxi abat xamante saalu am lii xaysu waral euh, wamaawu salabu lixtiyaari li wëgg sànni yi bilaa inkaari am na am na bay du ko jiitu mooy day bëgg ab sëriñam dëggal ko te jox ko boppam bàyyee ak boppam bañ caa wut lu ci xaaj bañal bi dégg digal ko muy dégg digal bu sëriñ bi soxlaa yi muy wasu xiyaaral wasu xiyaaral wala maa wasaalihi waaye wax ci mu moo lillaahi jàlla kullaahi loolu nag ñun ndongo yii nag loolu ab jàngale ñoo waxtu mu moo lillaahi yàlla ku la xëy daara ji bi mu sosoo léegi yàgg na am nañu fi jot a jaar ñu bëri am nañu fi jaar ñu bëri nekk ci bitti a jaar ba nekk ci bitti wala ñi fi jotoon a rek ngir nga amaat ko fi yomb loolu bi amutoon ngir nga fi di yomb diir bi nga man ngaa am laneen nag. ci biir nga nekk la nga nekkee ci nit waaye li nga mën a amee ci biir moom boo ko doon dund amal ko du yomb loolu nag ñun ñi fi nekk ñoo war a jàngal xool luñ soxla yàlla boolee ak koo xamee ne ko ñor bi doo ci lu ñuy li jamono xew xew-xewi jamono doo ko dégg ci ay xumbaay doo ko dégg ci ay woote woo te ko dikk mukk fekk ko ci lu lu ñuy loo xam ne lu ñuy xaw a sib la la kon yow am nga sensu mën a nekk war nañoo profité bu a baax bi ñu am ci loolu buñ génnee ñu koy ñëwee maanaam ñi fi nekk sax duñ xam ne ci bitti ci ñi fi nekkoon waaye képp koo xam ne jaar nga fi jaar nga ci daara ji ba génn foo mën di nekk dana da am ràññeeku bopp. jaar si jaar ci daara jii ci la ko suñu borom jaarale da nga am fésu wala da nga am taraanga sa jaar ci daara jii ci la suñu borom jaarale daara yi mën naa bëri na lool sëriñ si bëri na lool waaye bëri na ku jaar ci daara ba génn waaye boo ko gisee sax am na fii am déedéet waaye fii am na lu fi am loolu képp koo xam ne nan nga ko wut wut ko nan war a wute boo génnee mu feeñ ci yow kon yéen nekk ay ndaw. nañ profité bu baax baax ci jamono yu nekk niñ gën a mën a nga xamee ne mooy ndigali daara ji ak tere daara ji niñ gën a mën a tënkoo ci bëgg-bëgg sëriñ bi ndax amul lu ñu sëriñ bi digal mu luy delluwaat ci moom si Pape wax ko léegi man li bokk ci li ma gën a li gën a euh, tax euh, sama gën a ñeew sama gën a ñeew wala tax ñëwuma kenn mooy sëriñ bi danaa sa bopp danaa bàyyee sa bopp bàyyee gi la bàyyee sa bopp it dina jëlaat sa bopp dina demee loolu sa bopp lay jiwaat te jariñ la saa su dikkee mu gën laa soññ gën laa ñaax lool lu lay tegaat ci aw yoon képp lay doon loolu nag ñun dañ war a xam bu baax a baax a baax bëraana ko bëraana ko lañ koy doyee mooy saa su lool suñ bi ne dañu ko sas wala euh, liggéey bu jotee ñu liggéey loola lu weesu liggéey bi nga xamee ne liggéeyu daara la kenn ku nekk yaa waroon a tëddoo fi am am amul amul amul beneen bi ci a dem kon loolu lu ñu war a profité bu baax a baax kon nañ gën a góorgóorlu bu baax ñun ndaw ñi nekk ci daara ji bañ a ñëw kenn ku nekk ci biti lépp luñ fi war a wut rek bala ñu génn nañ ko am ni gën a mën a la xasaay ni gën a mën a yokkaate posté bi ni gën a a yokkaate bëgg gi ak liggéey gi ak nangu gi ndax it nag bëgg ak liggéey ci am na njariñ lool waaye ak nangu fi ñu rawantee ci ak nangu la nangu bu wér suñu diggante ak sëriñ bi ndax it nag euh, mënuñoo am mukk lu ñuy jariñ mukk te dalaa ànd ak nangu nangoo mooy waral barke sëriñ bi daana wax ne sëriñ bu mag bi daana wax ne boo demee ci téere bi ne bi wér na ko fi fekk maanaam bëggub bi sëriñam ak bëggub sëriñ bi taalibeem sëriñ bi bëgg taalibe bi li muy jariñ taalibe bi mën naa bañ a bëri sëriñ bi bëgg taalibe bi naa bañ a bëri ndax bu sëriñ bi bëggee taalibe bi taalibe bi na war a mel jël war a jaar mën na koo bëgg a waaye taalibe bi day jafe dimbale waaye su bëggee sëriñ bi lépp lu sëriñ bi bëgg dana ko bëgg lépp lu sëriñ bi digle dana ca nekk lépp lu sëriñ bi joxoñ dana fa dox te lépp lu ko aay it ko dana ko dana mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam duyuñ dara ñun lu dut ne ab royukaay la ci ñun luñ ko royee mooy digal def digal yi bàyyi tere alquran dañuy wax ne lépp lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal def waaye lu leen tere bàyyi loolu la ñuy doy yonent bi sallallahu alayhi kon ak sëriñ yi suñ diggantee suñ digganteeg sëriñ bi loolu dong lañ ko dee mu digal ñu ñu def mu tere ñu ñu bàyyi mu digal ñu li ñuy digal it suñ digganteeg suñ borom dong la kon loolu nañ ci gën a wal wàll xel bu baax a baax ñi fi nekk di ay ay law kenn romb ko bi wala kenn amu ko fi lool weesu na ci moom mu mën a sàkku barke mu mën a sàkku ngërëm te bañ a yàkkamti ñun ñi nekk ci bitti ñun ñi nekk ci bitti te nekkoon ci biir gisuñ ci bitti lu jaral tax ñu génn biir gi ñu nekkoon am gisuñ ci bitti lenn loolu jar na tax nga yàkkamti ba mën a génn ci biir gi te biir gi mooy njariñ bi ci ngay mën a muccee ndax bitti gi ay bu fi nekk yo xamé ne xëy na lu yàqu génn rek ñu yapp manam li ma bëgg wax mo yapp rek jamono jii tasaar bon bon yi mi ngi ci bitti di ñu xaar daara ji nak am ñak la bo xamé ne bo fi nekké da nga am kaaraange lu bari man nga jàpp ñak tabbi ndax na lay tabbi am na lu lay lu lay jañ ba do ja ba do ja tabbi kon jëriñ ñu yakam dara ngir ngir fexé ngir la nekk bitti bu ngir dara lu nekk bitti moom rëy ñu bët baa mu suñu bëj ba tax ñu bayyi li ñu nekk di ko wuti te bo nekk ci nga wara nekk wuñ ko ñi ko wara wuté so soo ka la nga ko génn nekk te nekk lam mëna nekk nga doon ko ci ñew wala nga doon ko gis lépp ma nga dem ba dab ko ci ba ko ci te teewul am nga loo àndaale ñu bayyi ko xel bu baax a baax baax ñu gëna jappal sëriñ bu baax baax mom moom wax dëgg borom bi rek tax tax def dégg wax xol yi ko su borom jox mu jiblu ko ak nangu bu ñu ko nangul ak njub ak baax ak nekk ci lu baax moo ko waral loolu dong moo ko waral yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne yàlla bu bëggee jàmm bi day def ci moom ak nangu ak di wax waa malaayka asamaan yëpp ne kii kat saa la daal leen koy ñu mën wax bu ko koy ci présentation bi day dem ba ci kaw suuf mu mel day saaroo di law di law di yaatu ci kaw suuf

moom moo nekk ci moom loolu la ñuy gis ci moom guddeeg bëccëg ci alquran ci xasida yi ci njàngale xam-xam njàngale xam-xam li muy baax baax baax baax baax mu ne guddeeg bëccëg génn ci ay kàngam teewul foo ko fekk day jàmbat ak bëggam jàng alquran jàngale alquran te am nañu nekk ci daara ñu ñooñu mën nañoo taxawee taxawaay boobu ba mu sëkk waaye teewul bëggam ak bëggam dooleeku ci lu baax ak. wallaay bu ko neexoon di saa su nekk mu toog ab saalam ay fekk ko fa di ko jox ay di seeyaan ndax yelloo ko yeyoo ko waaye taxul taxul ko caa nekk daa nekk ci li war a nekk moo tax suñu borom du ko lu ëtt na man sama jiw bopp xam naa ci dara wallaay yi saa su ma nekkee ci mbir ci mbiri àddina ba dikkaat bi day mel ne dañ maa damaa nekk nit ku nit ku yees dama nekk nit koo xam ne ku yees laa doon koo xam ne mbir ma muy fi génn ni ma fi duggee woon ak ñoo fi génne bokkul te loolu saa borom rek laa koy seeree te jàpp naa ne am na ñenn ñoo xam ne ñi ngi yëpp lu mel noonu kon nañ ko gën a gën a gën a sàmmantewaat lii àq ji wàcc ci diggante ak sëriñ ak tey moom mënul ne a doxalante sëriñ bu matu sëriñ du ne nii la tali bi war a def man lii la tali bi war a def déedéet waaye tali bi moo war a xam xàqam moo war a xam li ko يرون أنفسهم دون وراء duna وأنهم لم يليقوا بالكلامات waaye mi nga xam ne nag xam nga suñu borom nana naa defal tawféex yaa xam ne suñ bi yelloo yaa xam ay bëgg-bëggam dama koy wax bi ma fi jamono ji fi nekk di jàng suñu mbokk ñoo fi doon jàng lool bokk na ci man nga fee toog di jàng xam-xam bii lu bëri jàng fi téere yu bëri waaye bu génnee njariñ nga day néew ndax nga ci fa doon sàkkoo loolu nag ab ab ab ab leer la goo xam ne jombul ku leen jiitu koo xam ne jëmbul ak jiitu jamono rek lay doon jiitu jamono man leen cee mën leen cee léeg-léeg toog nga toog ci barab bi di jàng di nekk ci leneen moom man danay jox xam-xam bi de waaye yaa ngi xaj sa bopp loolu xam-xam bi mën ko jëriñ ëllëg ndax yaa fa nekk di taalal ay tànk yaa fa nekk di jottali ko ay kàddu yoo war a jottali ko wala yaa fa nekk di sol ay mbaxana wala yaa même kol kol gu woyof gu woy sax. ci kanamu serigne bi da ko war a tej gi ba genn barab ba kess gi ni war nañ ko mën a warmal nit ñep ba suñu dal du fi tege war nañ ko mën a ndax kees gi bu moom jëm moom alxuraan rek les fi jàng lu xasida gi sa su nek fi lay ba sa ko xam-xam fi lay tege kon loolu ñep ñu ci gëna samonté gën ci gor gor bu baax baax mo suñu jariñ kat ndax amuñ leneen lu ñu jariñ lu warmal sëriñ bi ak liggéeyee ko dong serigne Touba dafa ñaan borom tawara ko taala ne kon ñi nga xamee ne dañ may liggéeyal na nga leen defal kër gu yaatu ci kër gaa inna lazina saara wala xidmati fa lahumu ma waxtal janat wax ne di xawaa ba muy wax mooy mi ko suñu borom may dafa wax ne bul dañ di ma liggéeyal xafistuma siinaa ne dafa dir kon falaa takkul am bi fàttali yow sama taalibe bul bi relation taalibe bi ak sëriñ bi du ko liggéeyal gëm ko bëgg ko te nangu kon ñoo ngi ñaan suñu borom mu tàggat ñu bañ mën a dox ci loolu Euh, tàggat ñu it dimbale ñu ba li ñuy bëgg di ko wut si mhm. suñu borom yombal nañu ko jàppale nañu ko ba bu ëllëgee buñ génnee duñ ñee kenn ci lenn kon loolu daal ñu gën cee ba xam naa wax ne xam naa lool te ñu ngi bëgg a waxee xam naa mënuñ ko nee waxee dañ ne yéene yi yéene yi ñun doonte ñun ñun doonte ñun jëriñu wuñ sax waaye yéene nañ bëgg nañ ko jariñu waaw bëgg nañ ku jariñu loolu ndax damaa xam ne am na lu fi nekk loolu ki fi nekk jamono ji nekk li nga nekk doo ko xam maa ngi dañ koy misaal ci soxnaak xorom dañ naan soxnaak day yem ndox mu dëkkal jamono ji mu fi nekkee soxnaak xorom ndox mu nekkal mën na caa bañ a seey mën na caa waaye saa su génnee rek saa su génnee rek bu duggaatee ci mën a ndox lay doog nga xam wëlewul ndox moomu nekkoon ñi ñun ñu génn ñun ñëpp ñun ñu génn ñun ñëpp tey jii lañ gën a xam wëlewul li nekk ci daara ji tey jii lañ gën a xam li nekk ci daara ji ay njariñ tey jii lañ gën a xam li nekk ci daara ji ci moo amul luñ fi mën a wuti luy wuti biti lu fi amul bu dee alxuraan am na fi te liñ fi mokkal lañ alxuraan ci daara ji bëraa na daara yoo dem doo ko fa fekk te taxuñ fenn ba wane woo taxuñ fenn ba wane woo li ñu jàng ah, ah, xam-xam di génn yi fu mu demee ñu xam ne ñii xam-xam bu sell lañ am xam-xam bu rafet lañ am kenn du taxaw fenn ba ba ba wane woo kon loolu euh, taraanga la taraanga la taraanga nag wax dëgg yàlla du tuuti taraanga suñu borom la bu ñu demal ñu ngi déglu baax a baax sëriñ bi di jégalu mbooloo mi ni ci kàddu yi ni ñu ko yëkkatee fi ñu ko yëkkatee euh, fi ñu ko yëkkatee ni ñu ko yëkkatee xam naa wërës ko ne yëkkatee naa am njariñ yàlla ñu ko te defal bàyyi xel ne tur yi aw tur daa am solo tur سيرين خليل إبراهيم خليل سيدنا إبراهيم من جنوب بي واتقص الله إبراهيم خليلا يلا نقول جل من أبخر كل داري مواهب القدوس من يب أدنى على آخر سورة في دول مواهب القدوس أدنى ما ما يلا دوم في سورة أدنى ما يلا رك في سورة على آخر ما يلا في سورة كل مواهب القدوس نقول أنا بقول خليل الله kon wax dëgg yàlla war nañoo mën a yomb nag ñaan suñu borom yombalal ñu ko defal ñu tawfeex ak barke te yàggal ko fi te may ko wér naal yi mu bëgg euh, liggéeyal sëriñ bi ak diine ji suñu borom jàpp na ko yombalal ko te defal ko tawfeex barke Cheikhul Khadim di ñaanal bokk teel bi yëpp di jégalu in uridu illa al-islaaha ma istata'tu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Cheikh ci kàddu yooyu. ñuy ñaan yàlla rek suñu borom defal ñu ay nopp yu mën a dégg ñu taal yi ba ñu mën koo jëfee bu baax a baax a baax jërëjëf rafet na kon ñu mel ne sëñ Baba ah, dañuy jox sëñ bi kàddu bi rek.